asalaamaaleykum mbokk yi staan Dakar TV man Dalu dakar nuyooti naa leen tey fii nga xamni fi la laa nga xamanteni yene kay ay tia ñu da dem ci la tribune la tribune ñu def euh, trois morts des enfants et 20 disparus le bilan pourrait être lourd chavirement dramatique d'un pirogue à Matam inna lillahi wa inna de xol len gal nga xamanteni ni fe nga xamanteni moy Matam boo de xam demal ci la tribune su ma ci la tribune damay dem euh, le quotidien le quotidien ñu ne il rentre à la maison waaw waaw dellu na ca ga Bamba Fall vers Tanor j'ai rencontré le secrétaire général je suis au PS. Madame Bamba Fall delloo na mbattu la ca ndaala delluwaat na ca fa nga xam ne mooy ga boo bëggee xam xoolal li nga xam ne mooy Sud Quotidien su Sud damay daal dem ci euh, euh, pop pop ñu daal def euh, les flammes dévaste le marché de Tamba Manam Tak Taki, yi ak lak lak yi fim mu toll nii sol na lool marché ba ca Tamba ay way Sénégal daal marché day lakk rek lii moom lu ciy pexé suma joggé ci pop damay dal dem ci li nga xamante Dakar Times Dakar Times ñu def euh, accusé de corruption sur un montant de 6 millions de francs CFA veillés de remaniement La ilaha illallah yow ñuy waaj changer ministériel bi Macky Sall waaj changer ñu dal def Omar Gueye accusé de corruption Omar Gueye victime d'un gros fake news laa ilaha illallah ay waay Omar Gueye waay waay waay waay lii moom doy na waar di ñuy waaj a changé Omar ñu lay ji xaama noppi sax su ma jógee ci Dakar temps semaine daa dem ci li nga xamante ni mooy direct info affaire Ndeye Kati Fall et Sieu contre la douane il y a bel et bien délit de contrebande et de fraude Manam garab yi nga xamante dañ koy jaay te baaxul su ma ci jógee damay daal ñew ci nga xamni moy enquête yéen kaay enquête yéen kaay ñu def euh, colonel Ndaw réclame 1 milliard à Bougane Gueye Dany maanaam njiitu Sen TV directeur u Alima Ndione directeur Ahmed Aidara colonel Ndaw mang koy laaj 1 milliard de francs CFA waxumako enquête yéen kaay ko wax Suma ma ci enquête yéen kaay damay daal dem ci nga xamante moy critique critique encore ñu def euh, Omar Gueye en mode citation directe Mme Omar Gueye mi nga dañ ne dafa jël li nga millions de francs CFA tegul ci yoon mbokki Sénégal lii doy na de suma ma ci critique damay daal dem ci li nga xamanteni moy les échos les échos ñu def Sadio Mané renverse les aigles à cinq minutes match amical Sénégal Mali 2-1 Mali pelé ñu ngi leen di sonal de waye Sadio Mané fayul na leen fi ci biir salaamaaleykum Sénégal ti leen amna lu xew opérateur économique boobu ñu wax Iliman Lam ta nga xamné baxna lool Iliman bëgg Sénégal lool nangoo liggéey Iliman Lam daal ndekete Macky Sall lay noyé est que il est très très émergent Bonsoir.